salaam wa rahmatulah barakatu xaj delloo naa la nuyoo bi ak ziyaara bi. jërëjëf oustaz yóbbalu bés bi. waaw xaj Babacar yóbbal bi tey jii dafa jëm ci képp koo xamante ni kii dafa am lu ko ñor lool loo xamante ni bëgg na sunu boroom teral ko ci. mu jóg guddi di naafila bu naafila ba noppi. mu jàng yaa mu yaa raxiimu amul lim nak day wax ya karim ya rahim kem kàttanam su noppé mu tek ci baat yi xaj babacar mu wax allahumma akrimni fa anta karim allahumma akrimni fa anta karim warhamni fa anta rahim maana day wax ya karim luko sopp بنبي موخ موخ اللهم اكرمني فانت الكريم وارحمني فانت الرحيم حاج بابكر دي لين جوت لي نيو اك زياره وا ماكيب